Sehingga jalan Penyemekana Penyemekana Penyemekana abonné wu ci seen youtube bu ñambe tv na ñu la fofu nga mëna abonné wu ndax ngay mëna am vidéo yi ñu duggal chaque jour islam bobu lan moy islam c'est quoi l'islam bon ñu sante yalla julli ci bi sante Serigne Touba Cheikh Fall sant Cheikh Moussa bi nga xamante ni ci daaraam lañ génnee la mhm. et mu ci doctrine am la ñuy exposé mhm. tey jii noonu nga exposé l'islam mhm. kooku dafay mel ni l'islam bu doon kër la bu nekk ñetti néeg benn néeg bi rek nga tudd yeneen ñaari néeg yi tuddoo ko kenn bi téye benn benn néeg bi rek moom nga tudd parce que l'islam ci ñetti tomb lañ koy jàddale mm-hmm. iman mm-hmm. islam mm-hmm. al ihsan iman mooy da gëm yàlla gëm yonent yi gëm téere yi gëm malaka yi gëm malaaka yi gëm bispenc gëm bispenc gëm ndogal gëm àjjana gëm safara loolu mooy iman mooy ponk iman yooyu ngay gëm pour mën a dugg ci lislaam léegi nag deuxième phase bi nag moom la ñuy tuddee islaam moom lañ naan baatu seede yi julli woor natt asaka dem màq kooku mooy deuxième tomb bi troisième tomb bi nag mooy al ixsaan ixsaan dañ ko firee maanaam lu rafet mooy lu rafet mhm. rafetal yalla dafa rafet dafa bëgg lu tout court. yalla dafa rafet te dafa bëgg lu mhm. mhm. jaminu yuhibul hmm? mhm. lu la doon dafa yaatu. parce que c'est un peu philosophique. c'est un peu métaphysique. parce que dara mën na rafet ci yow du ci tu vois te rafet tamit dafay dem ci mais

bu ngeen tey ji ku bëgg dem Europe. da ngay respecter loi dëkk booy dem ci Europe. bu dee France la bu dee Italie bu dee faw nga am séjour am visa am séjour nekk en règle mais taxul weer dee ñoom ñu fay la. déedéet. respecté nga loi mais boo bëggee fayeeku nag da ngay am xam-xam da liggéey foofu beneen beneen xeetu engagement la. Mhm. léegi nag l'islam noonu la boo bëggee dugg ci diine l'islam li moy contexte bi moy mo symboliser ngam deuxième phase bi mo symboliser règlement yi mais nak règlement yoyu jëf ko taxul ñu fay la dafa am benen engagement bo xamanteni mom ngay euh mom ngay respecter engagement bo xamanteni dafa taxaw ci xam-xam ak liggéey bu ko defee liggéey boobu moom la ñuy am na liggéeyal yàlla moom la ñuy tuddee jaamu yàlla en quelque sort parce que jaamu on sous-entend liggéey parce que tey ji buur bu amee ay jaam jaam yi ban rapport lañu am ak buur bi mooy ñu liggéeyal buur mhm. ay bu dee ay nga yow war a liggéeyal borom bi ginnaaw ba nga reconnaître bi mooy mhm, moo la moom moo la moom mhm. léegi buur bi pour moom mu reconnaître ni yow jaam bi pour buur bi reconnaître ni yow jaamam nga mu tegal la ay règle ay loi yoo xam boo ko respecté foofe buur bi dana xam ne yow nangu nga doon jaam mais xam nga yàlla dafa xaw a doy waar yàlla dafa mystique parce que yàlla lépp ci moom la bàyyeekoo te lépp ci moom lay delloo en fait soxlawul dara mm-hmm. donc lim la sant du pour moom pour yow la

bis dina ñëw da nga ko fiy bàyyi. Mm-hmm. loolu la ñuy le non sens. bàyyi ji mbay. très bien le non sens. légui nak bon borom xel yi daal ne non mu dé li moy àdduna donc ce n'est plus l'appel quoi mais ñi nga xamante ni nag ñoom instinct animal mo leen dominé ñooñu duñ poser question yooyu ñom lañ xey rek am liñ bëgg jeex na duñ poser question. parce que on a un instinct animal. si parce que doomu aadama bo gis trois phases la dafa am première phase bi c'est l'instinct animal deuxième phase bi c'est la raison muy l'intellect. intellect mhm. troisième phase bi c'est angélique malaka la trois phases yooyu yëpp ñoom ñooy animé dund doomu adama donc corps bi support la outil de travail le bu yalla jox pour que nga liggéeyal ko pour que jëfandikoo ko pour jaabu jaamu ko ci ba pare wëlbatiku dund ci dund ci légui bu mu la léré né euh, alal ji lu mu bari bari dang perte. Mhm. Mhm. comment on fait pour alors euh, rentabiliser notre vie sur terre naka def ba sa dundu am bon legui yalla est yalla mom mo def c'est le créateur absolu. Mhm. te lu rek cause bu cause dafay bax mindeef bu nek xam cause bi. cause bi lan la. bon moy ñu reconnaître ko moy premier cause bi parce que dafa ne dama nekkoon ken amul ken xamuma ma bëgg ñu xam ma tax ma sak mais fofu yàlla dafa dama bëgg ñu xam ma tax ma sak kon xam yàlla dafay génn waaye nee na nag.

parce que mhm. lo amul fumu tambalé amul fumu yam ken kenn mënu ko xam. c'est vrai. dafay ndaw pour le l'esprit l'esprit humain peut-être. donc bu fekkee di nee dañ koy xam kon ci li ma sàkk ci foofu loolee lañ may xamé donc à base de ci li mu sàkk loolee moom dafa feeñ. à partir de cette information mën nañ xam ne dañ koy xam. dañ koy dafa def manifestation. waaw kooku li ma exemple bi ma la bëgg a jox mooy tey jii Pape Sidi sa bët yi bu mën du gis mais. pourquoi. ok Bonne qui est le bët Buddy, faculté yëpp mais du gis. kon amul amul amul c'est vrai hein. il faut une lumière extérieure vous nous connecter wu may gis kon sa pour nous mener c'est vrai. C'est vrai que le soleil c'est des milliards et des milliards de kilomètres. quand la lumière du soleil bi moo fait que fekk ci sunu pour nous mener mm-hmm. ok lampe bi tey ji moo fekk ci lumière lampe bi moo fekk suñu bët pour ñu mën a gisante kon bët yi en tant que bët individuellement amul faculté gis kon gis ak bët bokkuñu. Hmm. organe yëpp wala bët kese organe yëpp organe yëpp te bët dafa am sept défaites sept erreurs yoo xamante ni bët daf ciy dugal doomu aadama te sunu bët ci lañuy ñuy wu pour construire suñu dund non. Hmm. Hmm. donc parce que bët lu ko sori trop du ko gis lu ko jege trop du ko gis sa kanam mo la gëna a jege te mënoo ko gis il faut nguut seetu ba selfie <laughs> tu vois bët li nekk ci ginnawam du ko gis tu vois bët lu reuy mën na koy am perception diko ko lu ndaw fekk lu reuy la xam nga mhm. weer bi boko ko da ngay yaakaar ni lu ndaw la benn boule la te fekk mo gëna reuy rëy planète Terre waaw <laughs> lu tuuti tamit bët mën na ko jàppee lu rëy parce que àdduna bi boo dugg avion tey nga dem ci benn altitude bi tiim àdduna bi da ngay gis wala ñu wan la yeneen yeneen euh, univers yi da ngay gis ne àdduna bi lu naw la yeneen planète tu mm-hmm. donc bët dafa am ay erreur yoo xamante ni bu ñu ko gidewul day def da lay dugal ci erreur mais am na bët bu gën a puissant bët bi muy xel xel li muy gis bët du ko gis dëgg amna tamit benen beut tamit bu puissant xel muy xol xol limuy gis xel gis donc yooyu dañ la ci dañ la ci wara gindi ñu ci mhm. ba mu dama pour gindi jami dafa am ñuko gëm am ñuko gëmul kon ñu deux parties les infidèles et les croyants ñaari parties yoy ñoo am ci ko suuf donc yàlla ba mu ne yaa ayool lazina amanu dafa woo jaam yëpp jaam yi wuy si ñu wuy si woote bi mu tuddee leen non dafa ne yaa ayoon naas yaa ayoon naas mooy yéen nit ñi ñu wuy si mu tuddee yaa ayool lazina amanu ñu tuddee yaa ayool lazina ñeneen ñi ñu tuddee leen yaa ayool lazina kafaru hmm. donc divisé na mais ci biir ñi gëm tamit am na ay parti muy les gens du livre les chrétiens les juifs les musulmans qu'est-ce gëm à da ngay dugg donc ci biir ñu gëm ñooñee rivalité am donc beaucoup, les gens du livre vont exposer nos ko bon il y le woo qui, ci une dimension mooy jaamu leen ma te bu leen de bokkaale ak dara mm-hmm. mais tout. ñu pour ñu défendre l'unicité de Dieu moom la ñu tuddee le monothéisme gëm leen ma garaaw mën ko gëmee jaamu leen ma te bu ngeen ma bokkaale ak dara léegi jàpp leen ni man kenn la aw ma ndey aw ma baay aw ma leneen tu vois moom la ixlaas di témoin lu allahu ahad allahu samad la bi tu ba mu paree ti loolu mu ne nag ngeen jaamu ma jaamu mooy liggéeyal leen ma bu fekkee ne dañ ne nañ ko liggéeyal mais fan lañ koy liggéeyal ak naka lañ naka lañ koy liggéeyalee ci benn tol, nak tol bobu la ñuy tuddee l'islam bu dé julit ñi <laughs> muy point yi ñu départ donc lool sax pour ñu gëna ki ak temps bi li ngeen wax ci l'islam non. donc dafa am euh, islam dafa am jangalé. njàngale comme li fi Pape Sidi laajte légui. Mhm. jaam bi tay ya ngi expliquer gis-gisam mhm. donc ci gis-gis bobu mu am njàngale mu ko l'islam wax mhm. bu ko islam wax pour mu dundé non. Manam ki nga xamné ndaw la nan lay dundé. ndaw bi ñu yor ki ko yor nan la war a dundee moom mhm. communauté bi mu nekk nan la war a dundee ñoom mhm. ki nga xam ne njiit la mbala ki nga xam ne njiit la muy politique waaye politique mhm. ki nga xam ne njiit la muy waay diina nan la war a dundee communauté bi mu yor donc lan la lislaam jàngale ci biir communauté boobu noonu nga xam ne tey ñoom ñoo lëmb àdduna seen njàngaleem islam ci ñoom bon l'islam bon projet la projet d'éducation projet divin la dafa indiaale dafa jangale di doomu aadama wara dundé ci kaw souf ba kérok mu le mhm. projet d'éducation la mais ce qui est paradoxe au Sénégal moy l'islam dañ koy jangalé seulement comme dogme manam comme niñ ko waxé sank mhm. benn patch bi rek la ñuy jàngale mhm. mais yeneen patch yu bari ñëwul motax nak li intéressé tu vois parce que bu université la ñu faculté juridique ak faculté historique mo ñëw Sénégal mais faculté scientifique ñëwul faculté philosophique ñëwul faculté artistique ñëwul culturel y a ñetti faculté yooyu yëpp ñëwul Sénégal te loolu dafa nekk ci l'islam boobu moi composé moi faculté universitaire faculté artistique dafa am ci islam si culture culture ouais ouais ba fii boo defaree statue ñu ne la dafa xaraam mhm. fii boo defaree euh, tableau dafa haram fii boo defaree musique wala je sais pas tout ce qui gravite autour de l'art c'est haram. mais mais culture tu mën na dem ci ça non attends. Hmm? culture. c'est hmm. une nee na une culture générale moo gënal ku hmm. culture parce que. yàlla mon moo ne ma sac à travers mes images. Dieu était un sculpteur. parce que mon sculpté Adam. non. on a été conçu euh, ah, par le Créateur. il nous a créé. et Dieu était un musicien parce que boobu sculpté mon j'ai soufflé mon âme j'ai soufflé mon esprit sur Adam Souffler, là c'est de la musique Zikrou, la musique là Bah, j'imagine les ibadou, ils sont en train de dire subhanallah. Bah, ils vont... <laughs> Parce que dans le mot souffler avec musique, ils sont capables de trouver une, Mais, une, très grande différence. Yomal Khiyam, vous avez du nit di le trompette Quand mooy souffler le trompette pour nit ñi le trompette là là, c'est un instrument musical c'est de la musique. parce que si ça existe dans le monde c'est parce que dafa neex yàlla xayma. peut-être musique bi wax bon par rapport à li musique di inspiré. bon dafa am li musique d'inspirer. inspiré ak ak li nga xam la musique di joxe foofu noonu ak nit ki ni mu koy jàppee ci yeeslu googu c'est-à-dire nit ki ni muy consommer musique boobu moom taxawaayam ci musique bob. mbala ni mu koy tëggee. est-ce que du loolu la ñu wax dafa araam. façon dafa am benn mbir boo xam dafa am seytaane. muy iblis avant muy nekk seytaane. xam ngeen nu mu tuddoon. ah. Azazil. Azazil ibnu Lisa. yaa ngi dégg waa serviteur yàlla la woon. dafa dem ba benn moment mu yëg boppam. daal di teppi ndigalu sunu borom. Azazil ibnu Lisa. est-ce que yaa ngi dégg wax ji. teppi ndigalu sunu borom sunu borom génnee ko këram. ci royaume mu réclamer. ay droit ay droit yàlla jox ko ko. léegi mune yalla man sama effort yeb dama koy def pour dévier sa jami nga ma jëndé pour am ñuma wétali safara parce que bëgguma fa nek man kessé donc seytaane garaat la jinné num ko seytaane jinné la mhm. jinné num ko mëne nek non la ko doom aadama mëne nek mhm. parce que doom aadama bo xamanteni dalgati jalgati nga sunu ndigalu borom da ngay te sa transforme en un mhm. tu vois daf lay momalé ci bopam donc en quelque sorte yàlla sàkkul lu bon lu bon amul accident mo par ignorance

ni mu la mën a ci yalla waaw la la mën pousser aussi ci moy mais dépendre na ci niñ ko composer c'est ça c'est ça que je voulais dire <laughs> musique day yobuni ci yalla bonne mm-hmm. musique. l'affaire en tant que telle n'est pas mauvaise. mais alcorane alcorane amna na neuf daaju jang neuf façons tajwid. Vrai, alcorane yéeféeru màkk yi. dañ dan baye ba yonent bi di jang alcorane goudé ku nek jenn sa kër ñëw di déglu di joy te ju tuubaguñu ndax neex gu alxuraan neex te ñoom buy xëyee ñooy ñooy sànni xeer yonent bi di ko dingat te bu guddee ku nekk jenn sa kër dem ci ginnaaw <laughs> nekk pour jàng déglu ni muy jàngee alxuraan awa dañ fa daan biddante ngir déglu ko ndax daaj bi ak mm-hmm. kàddu gi ak contenu bi c'est musical et puis boo demee tey ji boo demee dans la culture chrétienne lan lañ lay wax le verbe qui s'est transformé en chair

parole te Dieu kàddu sunu borom Moussa yonent yàlla Moussa keroog ba yàlla waxeex moom ba mu ñëwee dégg doomu aadama yi dafa wàcc ñu laaj ko mu ne neexaayu kàddu yàlla bi ba mu déggee kàddu doomu aadama dafa mel ni xelam da doon tey ndax kàddu yàlla bi tu vois donc son le son am nga loo wax aussi lu am importance mos naa ko fi laajte defe naa. Euh, parce que ñun bi ñu juddoo ba léegi. Mhm. ci mel ne man yàggul. Mhm. ak yéen ñooñu tolloo. yàggul mais dañu mel ne comme dafa am benn paradox bu may dégg. Mhm. ma laajte dama dégg ñu ne yàlla nee na lépp mu ngi ci alxuraan ah. tout est dans le corps. Ah? tout est dans le corps. Mhm. Ah. kon ni nit mën a def. Mhm. ba jël benn appareil yóbbu ko ci kaw àdduna bi mu tiim ñu mu tudd satellite. mu mën ci jëlee benn fil boo xam ne day dugg ci téléphone. nga mën a composé numéro Gaydel mbaa numéro Papa Ndaw mu dem ci satellite bi. wër Papa Ndaw fi mu mu ko est-ce que ñun parce que bi ay science scientifique yu découvrir en fait seen découverte bi ñu def mhm. en réalité ci alxuraan ñu tuub mais gars yi dañ leen di jël nëpp nëppal ne ñii dañu commencé dof parce que vous mu au grand jour Musulmans civilisation Europe dëgg premier université bi ñu njëkk est-ce que xam nga fu mu nekk Espagne Andalousie. Mhm. Andalousie. bon demee dans les pays langues occidentales yi am na ci mots yu bëri d'origine c'est l'arabe. mais zéro. Euh, le prophète Mohammed. sallallahu alayhi wa sallam. l'islam indi comme ni le la ko sous forme universitaire toutes les facultés différentes ils bi daf ko indi. tey jii boo demee grec boo demee en Europe nga xamante ni la philosophie grecque nga xamante ni mooy la base de la civilisation occidentale mais musulmans yi ñoo leen jàngal ñoo leen ñoo ñoo leen jàngal philosophie grecque Ibn Rus ñu koy tuddee Averroès Ibn Sina moo njëkk a defar encyclopédie de la médecine de la médecine tu premier mhm. montre bi ñu njëkk defar ci àdduna bi Turquie lañ ko defaree. Mhm. doo le ci premier encyclopédie ophtalmo faju bët julli di mhm. ñu ngi Irak donc l'islam c'était une religion scientifique te puissance scientifique bobo, ak connaissance culturelle, mon yooyu musulman yi dem ba dominer monde bi dem ba dugg mais dañu dem ba en certain moment pouvoir bi bari xaalis bi bari corruption dugg nous ñu commencé fooy affaire yi yàlla bëggul corruption. Ah, mais a jàngat gi

tënkuwuñ ci mhm. euh li nga moy suñu alal mhm. tënkuwuñ ci loolu moomuñ suñu hmm li nga xam moy mooy suñu yarug doom moomuñu ko mhm. tay bañ nañ ko ba nasaraan bi tay sa dom bu toge bu wara hmm lendi hmm dang koy sañse bam rafet rafet jox ko bu rafet mu sol ay dalam nga parfum nako dama demal hmm bu suba bu waré dem jangi arab nga nako solal yere tugoy ji nga don fubalee parce que yere yi dang koy jangé ji hmm oustaz ba 1000 francs nga koy fay ou 2000. Mhm. nasaraan bi 60 000 nga koy fay par weer. Mhm. kon ñun est-ce que ñun tënkuñ suñ bopp ci biir maanaam islam tënkuñ suñ bopp dëgg-dëgg pour bañ war a mën a xam yoon wi nga xam ne war lañ mën a jaar te islam jàngale ko donc mu nekk éducation. Mhm. parce que islam jàngale na. nan la jullit bi war a mën a dundee. ci biir réewam nan la mën a jullit bi war a mën a amee économie koom ci réewam nan la jullit bi di def ba moom boppam parce que loolu la suñ mag ñi xamoon bi ñu fiy jógee da bàyyi nañ ñu ndono parce que sëñ Touba yéewu nañu ci jaam bi mu fiy jógee Alaaji Ablaay Ñas yéewu nañu ci lool maam Malick yéewu nañu ci lool euh, borom Njaasaan euh, euh, comment dirais-je maam Bu Kunta maam Bu Kunta borom borom borom kii say naay sàllaay ñoo ñëpp yéewi nañ ñu ci njaam wan nañu ne bu ngeen bëggee dund da ngeen di tënku ci yoon wi mm-hmm. te yoon woowu ngeen tënku mooy yoonu diina islam mm-hmm. mais daa mel ni dañ ko faa bax mm-hmm. jël yoonu nasaraan bi kon ñun ñoo jé ñun ñoo tënkaat suñu bopp léegi l'islam moom lan la jàngale tey nit ñi ndaw ñi war a dëppaat ci loolu pour yeesluwaat seen ngëm pour mën a am nekk sur la bonne voie bon déjà Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne dafa paradoxe Sénégal dëkk bu contradictoire la <laughs> Sénégal da ngay nekk jullit jël sa doom jox ko ku dul jullit mu yaral na ko loolu déjà point la mhm. Sénégal amuñu système d'éducation programme d'éducation boo xamante ni dëppoo na ak li ñu gëm mhm. suñu école yi dëppoowul ak li nga xamante ni moom la ñu gëm tu vois bon ma jox la benn kii à part islam dañ ko mhm. war a mën exposé exposer ci contexte boo xamante ni dafay autonome ci tur yi ak sant yi Mhm. parce que Sénégal j'ai damay yàgg dégg chaque fois bu ñu tuddee l'islam mhm. soit ñu solal ko mbubu Serigne Touba wala mbubu Alaaji Malick wala mbubu Cheikh Ahmed Tidiane wala mbubu baay Niass wala mbubu Kiri non l'islam tool la boo xamante ni ñooñu ñëpp c'était des acteurs yoo xam ku ci nekk bëgg nga ñëw ci tool bi bay ko ci sa waar après dem mhm. donc ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy jullit ñi nga xamante ni ñoo ñëw seen ginnaaw tamit ñoom li leen waroon ci l'islam ñun moo ñu war kenn ku nekk sa waar da ko war a bay loolu moom mooy li nga xamante ni mooy dëgg légui nak ñun liñu war moy informer julit ñi xamal leen li nga xamanteni moy deug deug l'islam parce que l'islam dafa am phase bo wax première phase islam information la hmm. mais il faut ngeen xamni tamit l'islam colonisateur la hmm. tubaab bi colonisateur la hmm. ñaari colonisateur bu ñu ci benn dëkk mais dañuy xex mais comme l'islam ba mu ñëw nek colonisateur dafa fekkone Euh, l'islam moom ñëwee nekk colonisateur kan moo doon acteur prin amoon na ay acteur principal yu bari mhm. colonisateur bi ñëw nekk euh, colonisateur bi tasante ci terrain bi mais acteur bi taxaw ne moom programme islamique da koy mettre en pratique mu Cheikh Ahmed Bamba mais tubaab bi da ko jàpp jénnee ko dëkk parce que moom moo dëgër bopp ne dafay daaw programme islamique parce que loolu la gëm il a été un musulman sincère mhm. léegi lan mooy programme islaam islaam moom dafay yee nit ki pour nit ki jariñoo boppam mucc fii mucc fële lan mooy programme tubaab bi tubaab bi dafa ñëw ngir nelawal nit ki. pour jëriñoo ko pour jëriñoo ko. Mhm. te kii yee nit ki ak kuy nelawal nit ki mun mënuñu bokk teere. loolu ñu woon conflit bi entre Serigne Touba et Sëñ te c' était purement politique mooy may gisee ni nitu diine yi di génnee politique ci diine dañ may jaaxal parce que fin wu l'islam c' est politique. Mhm. économique social mhm. mooy fin wu l'islam

cause bi mu mooy les théologues. on théorise. les théologues mooy jàngalekatu diine yi ñoo limité ba pare limité nit ñi. jàpp faradal ay nii. faradal kifaay sang néew loolu la. da naa ko laaj benn oustaz ma ne ko. yàlla neen lépp mu ngi si alxuraan fan la téléphone nekk si alxuraan. mais côté boobu volet boobu. scientifiquement parlant gis gis nga tey jii. Euh, l'islam dafa am fu mu fekk doomu aadama muy phase animalam bi xam nga maa ko doon tàmbalee sànq da ko war a jëlee foofu mooy jubadi war ko jëlee ci jubadi yóbbu ko ci jub ci mhm. bu ko jëlee ci njub xam nga jub mooy justice mhm. loo mënti jàng loo mënti xam te juboo doo dara dëgg la nekkal astrologue nekkal imam nekkal médecin nekkal avocat nekkal jurist ba la ne boo jubul <laughs> amoo ci yàlla dara troisième phase bi nag moom la ñuy tuddee vertu il faut être vertueux moom da ngay am jikko yu rafet jikko yu rafet yooyu boo ko amee ba noppi nag après nga def ko te yàlla rek tax bañ ci xaar dara est-ce comprendre la ñuy développé doomu aadama loolu mooy programme islamique léegi nag xam-xam yi nga xamante ni moom la yàlla wàccee ci kow suuf yëpp Eh, yàlla waxoon la ko malaaka yi ba ne damay sàkk doomu aadama wàccee ko ci kaw suuf malaaka yi dañ ne yàlla ndax da doomu aadama muy semé crime ak corruption ci kaw suuf <laughs> yàlla ne leen yàlla ne leen mais xam naa lu ngeen xamul mm-hmm. foofu la ñu jàpp foofu la ñu défendre nag yàlla foofu dafa défendre xam nga ñu jóge ci ñu jóge ci loolu yàlla daal di ne malaaka yi dafa am ngëneel yu nekk ci kaw suuf yoo xamante ni yéen amu leen ci soxla pour doomu aadama la mm-hmm. fer diamant pétrole or toutes les toutes les. ressources minières ressources yi nga xamante ni boo ci ko souf yep yalla da ko créer pour teralee ko codes adama té malaka amu ci soxla. tu vois et puis il fallait que yalla créer ko xamanteni ni parce que doomu aadama dafa mystique parce que doomu adama trop dafa complexe. ñu bëri xamuñu seen bop ko ci laajoon yow yaay kan lu muy njëkk wax moy tour bi ko ndeyam juddee won ak bàyyam tuddé won lay wax. foo jógee mu indi ndeyam ak baay mais non dépassé nañu loolu existé nañ avant suñuy ndey ak suñuy baay. est-ce que nit. desut a xam boppam. est-ce que nit ñàkk des xam boppam googu bokk na ci tey li nga wax ci yàlla noonu. Mhm. te da ngay gis koo xam ne est-ce que jotul. nit ki xam kan lay jaam te dafa manqué ci ñun ba ci tuut tànk ba ci mag ñi. Mhm. da gis koo xam ne ci ay caaxaanam lay waat yàlla. Mhm. donc dalay leer ne xamu ko. nga gis koo xam ne ca caaxaan lay waat Seydina Muhammad mhm. da lay leer ne xamu ko mhm. donc nit bi ko yàlla wàccee sur terre mhm. def ko li mu koy def est-ce que ñenn ñi des nañoo xam seen bopp li nga xam ne mooy seen mission parce que xam sa mission mooy nga jàpp ne àdduna bi parce que yonent bi wax na ko sallallahu alayhi wa sallam nee na addunya sijnul mu'minin wa jannatul kaafir àdduna bi ma leen yóbbu yéen jullit kaso la ci mais ñun ñu jàpp ne fii dafa war a paradis pourtant mën nañ fa dund mbégte mais ci kaw jaamu yàlla mun nañ fi dund lépp loo xam ne yàlla maanaam nee na lii yéen a ko moom mhm. ñun ñoo ko moom mhm. mais ci jaamu ko la ko la ñu ko sàkkale mhm. parce que bu la joxee ñam wi sax daf na nang ci jaamu ba dimbalee ci koo xam ne munu ko am na ku ñàkk comme yow ku bëgg am li nga am jamono ji amu ko même wér gi bu la ko joxee dafa am kum xañ wéradi yow nan nga koy dimbalee ci sa tuut ci sa doole gi mu wér ba moom mu jóg donc nit ki est-ce que xam na boppam est-ce que xam boppam googu ñàkk xam yàlla yóbbeewu ko ko mbala ñàkk xam diine bi nga xam ne euh, yàlla wàccee na ko ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam du ñàkk a xam. bon l'islam dafa am ñetti piste yoo xamante ni ci la engagé ku ko gëm. Mm-hmm. islam mooy sa diggante ak sa borom. Mm-hmm. communauté. Mm-hmm. mooy communauté bi ngay juddoo. ak le monde. islam c'est une dimension privée. xol lay traité. communauté les relations sociales. boo dans ci communauté communauté bi def li muy def ci yow ba nga màgg mën am nga bor amel communauté bi da nga war a ba communauté bi am yokkute. le monde moi, tu es un citoyen du monde. da nga war a ba sam bir ci kaw souf parce que yàlla doomu adama la jël def ko lietna naa ci kaw suuf. mais doomu adama ban du ki ko gëmul ki ko gëm la. Hmm. légui jullit ñi dañoo faussé loolu tey bu doon parti yalla ak iblis iblis mo dominé yalla ci ko suuf. moom laay bëgg a hein? waaw. Mm-hmm. parce que c'est c'est iblis qui dirige le monde. julli ñi xam nga lan lañ là. ci ci ci l'islam juróomi waxtu julli wor nat asaka dem maak fa lañ yam toutes les instances internationales doivent fa du pays les G8 gis nga fa pays jullit hein les lois universelles yi ñuy imposer de bi ban dëkk ban dëkk jullit bo ci tëgg ben loi proposition de loi islam ça n'existe pas mhm. donc ñun mission bi ñu on a failli cette mission là mhm, mhm, est-ce que y a une wax de donc dañu dañu le colon euh, les occidentaux parce qu'il y a une coalition judéo-chrétienne contre l'islam dans le monde tu vois parce que l'islam est contre le système l'islam doit faire trois opposants Avec les non-croyants gis nga tey ji Sénégal foo gisee débat bi projet de loi bi ñu dugal bërki démb contre euh, criminalisation de l'homosexuel bon ñaata ONG ñoom ñoo nekk Sénégal di dëggal di di di di financer ces ces ces associations. Mm-hmm. bari na comprendre nga les pays musulmans là eh, mais euh, nu l'information ne passe pas et puis musulmans yi Sénégal am ah, del siwat Sénégal teguñ teguñ programme éducatif musulman l'islam bu leer ci bopp ñëpp mm-hmm. l'islam programme d'éducation bi daf ko jàngale sur cinq points wala six points benn bi mooy éducation naturelle éducation naturelle lu ngeen dégg ustaas bu ciy wax éducation environnementale mos nga dégg ustaas bu ciy wax raar na de bu amee non dafa hmm, te yàlla environnement la njëkk jàngale ci mhm. ci ci ci ci ci alxuraan éducation naturelle jóge ci éducation mu indi la éducation physique éducation physique sport dafa bokk ci l'islam est-ce que mos nga dégg islam bu taxaw di proposer nit ñi pour ñu leesoon le sport parce que yàlla jullit bu am kattan moo ko gënal jullit bu néew kattan. Hmm. éducation physique éducation physique muy que ni les les besoins primaires de l'homme lekk bu suur am wér yaram am foo dëkk am am jàmm kooku kan lañ ko dénk kuñ dénk loolu. kan lañ ko dénk. le président de la république.

est-ce que nous devons faire une émission pour ah, la est-ce que nous devons faire une émission la après éducation physique nous avons éducation intellectuelle mm-hmm. éducation intellectuelle toutes les connaissances scientifiques rationnelles l'éducation mm-hmm. na éducation spirituelle moi ce qui regarde l'état du cœur après nous avons l'éducation de l'âme beaucoup de mm-hmm. après nga dem l'éducation divine beaucoup. yooyu yëpp c'est des points yoo xamante ni Sénégal gindiwuñ ci nit ñi. bëgguñu sonal ak àjjana ak safara bloqué sunu raisonnement. <laughs> appauvrir ñu. est-ce que loolu tamit suñu internat yi nekkul dinañ ko jàngal. internat yi nekk ci réew mi. waaw ah. est-ce que nekkul dinañ jàngal yu mel noonu ndax man am na internat bu nekk suñu koñ. booy dañuy def sport. Mhm. dañuy def lépp lépp loo xamante ni école français dañ koy def ñoom dañ koy def. dañoo war a fusionner les deux écoles parce que dëkk mënul am deux programmes éducatifs yu bokkul. Mhm. bii ñu koy financé bii ñu. ñu koy financé c'est de ah. dañoo épaulé ñii bàyyi ñii ñu ñëw. mais xanaa amatuñ indépendance moomatuñ suñu bopp. loolu loolu ci wax la rek. ok très bien donc contrat la ñu am kon ñun dañ ñoo jaay lekk suñuy njëg te yëguñu ko nañ nangu ne ay esclave lañ. ba léegi. xanaa wax na su ko xari doon seen YouTube bu Ndiamé TV bësal notification bi ñu tàmbal nga mën a abonné wu. ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.